thank you façon yi mu ko firee baax bi benn la mais ñetti yi ñu tudd ku ci nekk ak li mu firi ko mu ni walillaahi isa mooy dini yàlla ku inaccessible izza mooy mën nga bare pexe mais mënuloo xam fu mu nekk ba fekk mu ne wali rasulihi yonent bi izzaam mooy il est homme incorruptible moralement et physiquement yonent bi kenn mënu ko korom ni ci moral ni ci physique kenn mënu ko korom quinze ans loolu waaw mu ni borom pas-pas nag ñi ñi ko wër seen izza mooy wala mu ngi nii mooy sont indestructibles lenn mënu la ñëw ba yàq pas-pas bi ci ñoom ak détermination bi ci ñoom ma def na ni yéen Moustarchidine yi bu mujj boobu seen paratu waaw day nekk ñu indestructible du état du puissance du kenn kuy changer virgule ci liggéey man may nekk tête de liste ñu ma soog a noonu mu ne ni tête de liste te yow mii nag te kenn xamul yaay kan ñi nga seqal xamul lu ñu gëm lan la xanaa xam nga ne baatu tête de liste yàlla ko njëkk a tudd ci ulul azmi mina rusul Nuh Ibrahim Moussa Isa Muhammad ñooy tête de liste yi ci wàllu nubuwwa ak risaala yonent bu ñëwat nag ci seen gannaaw lay topp moo tax nga gis honnêteté yonent yi mësul toog ak sunu borom mukk ba ñu ko war dafa woon ne ulul azmi yi juróom yi tuutiwul ndax mën ñu ci woon yokk diwaan ji jamais waaw mësul nangu suñu borom di ko laaj ni ko ndax mësul nangu cee yokk xam ne am na domaine boo xam ne domaine réservé la suñu borom moo ko moom wala boobu mu toog ak suñu ñu ngaa boo ci mënoon a wàññi jiw de ñaar yàlla di ko def li mu peeg moom Muhammad peeg mais moom Muhammad ci boppam itam rus na fii wala wujjante la fekk pour nga maîtriser données yi mën na mel te fekk li nga war a xam da nga ko xam dama am sama benn wëlëre procureur Moussa Gueye bii Jonas mag na ñaar fukki ak juróom bis mu ñaan Moussa ni ko dama bëggoon gis sëriñ Moussa Ba ndax dafa am xalaat yu ma am te bëggoon ko proposé Moussa ñëw wax ma ko ma ne ko occasion la parce que ñu ngi ci weeru koor kon mën nga ànd ak moom commencé si njël tax ma ni ko waaw da nga yóbbante woon wax ni dafa dafa ma soxla woon pour loo bëggoon ñu waxtaan mu ni ma ah dafa mel ni ma tëdd ko nag ma ni ko lu mu ni ma dama ñu bëggoon samay mbokk ñoo ma boolewul ci seen bopp te ëpp ñu ma pas-pas ëpp ma wilaaya ëpp ñu ma xam-xam Serigne Cheikh wax ni yonent bi ba ñu koy yóbbu ca kaw yéen ñi réer ñu yëngu yëngu yonent yëpp daje nee na ba muy dem foofu booba ay bokkam it ñoom it ñu ngi toog fii ci kaw suuf yor seen yàlla lay mant takkal ko ay sikki bi nag yaay seen ndax adam ca kaw moom ngay fekki wala ñi seen yàlla yi nekk fii ñu takkal ba ñu sikki bi yàlla mu ne yow la ngay seet nee na mu ne ko ba waxee loolu la daa xam ne tontu na kon seen lu la mel ma ñëw di la déranger waaw ba tax na li nga ci sax ñuy ñëw ci jéem a làmbatu waa gàmmu course bi moom lu leen woon fexe rek ñu def jàmm yëpp muy benn benn nit wax na tey man ci ñun la bokk sax la dama doon seetlu ñu ni ma maa ngi waxtaan ak Serigne Abdou Junior mu ni ma man daal bu ma sañoon jàmm yëpp nekk benn nee na ma ni ko ak ah, Moustapha rek boo ko wóoloo ba mu ñëw ñett nga ne ko sa gàmmu jàkka maam bi yàq gàmmu boo ko waxee loolu du gàmmu ni pour suba mbokk mi nag ñëw yi ma ko nettali ndax di seet sama réaction man ko yow maa ngi soog a xam ne xamul lu xew suba ndigal la bëgg loolu mooy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane feek moom gisaatuma ko mu ne ma bàyyi kursu nit ku yàlla dund ba moo ko bañ mu mel ne nag dafa jaaxle ndax li mu simplifié affaire bi te nekkul gravité di jàmm loolu mooy tax am na xam ni jàng ko farata xam nga seen i xayma yi fii bi mu amee Serigne Babacar Sy comme taalibe sóoru ba nga def ko moroom Serigne Babacar a réglé sa compte Serigne Babacar ci boppam itam bi mu amee Serigne Cheikh comme tay lu ñëw ci tuuti ndax ku ko mës a sóoru nga def ko moroom Serigne Cheikh réglé na sa compte ainsi de suite mooy maam bu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak moo ñu bàyyi yàlla bu am bàyyi xam nga am jur ma bàyyi waaye itam sàmm la woon ci sàmm bi ci la daan yonente bés ñu ñëw wax ko nag ni ko Abraha ma nga ànd ak ay ñaan pour màgg si Kaaba ñaan ko pour mu jël ay disposition moo xam ne ñu bari 우리 인생이 매기로 경기가 몸으로 해주세요 인생이 매기로 سوف يحفظه عظيم قولك عظيم قولك لا أغني سوى عملي li mu wax dëgg la mais ni ko yàlla na koy xaar ci laa أغني سوى comme la abri si way naam bi tax jëlul responsabilité mu ñaan yàlla mu may ko fukki doom bu ko mayee fukki doom fukkeel ba dana ko rey sante ko yàlla fukkeel ba ñëw ne Abdallah te Abdallah moo war a gëm yonent bi nga xool ñaan yi léegi bi mu demee ba ni mënul leen yi Abdallah laaj ci lu mu koy watte ñu ko dam lay bàkkaay bu bant bi dalee ci Abdallah rek nga dolli yeneen fukki gëlee muy bantale muy dal ci Abdallah ba mu mën fukki yoon mu soog ñëw ci gëlee yi mu perte téeméer téeméeri jullit ñi ko taxoon di rey boppam laa bu lay jiwaay naa waaye ñu wane ci force Abdallah ndax doom yu fukki doom yëpp kenn ku ne fukki gëléem rek nga tolloo bi Abdallah ñëwee la bant di soog a dal ci jëlee bi donc muy téeméeri gëléem soo ko toll moom yàlla transféré ko xaw ma naan léegi yéen ñaari pàcc transmettre ak transféré du benn moo tax dénkuñu leer gi ci ñoom dañ ko nii li dalul alpha ma yoroon ci séddil xaaj na